gent lancet moo xam danga koy yëy wala nga yor ko di dagge wala ñu koy dagg yooyu yëpp am na nay tegtal moom tamit bokk na ci gént yi nga xam ne nit ñi danañ koy faral di ko laaj lu bari gént lañ sa dagg la loolu dana tekki cat dana tekki cat gu la nit ñi catu ba tey boo ko génte gis mu bari ci sa kaw loolu ñaara dana tekki cat maanaam wax ju bari ci yow ba mu nar la indil gàllankoor mu fekkee nag yow sa jëmmi bopp yaa yore leen set di ko dagg nit ñi loolu wax ju ñaaw luy génn sa la jëm ci nit ñi dara tekki loolu ku gént lan set dagg la ba génn deret loolu coowal xaalis lay doon maanaam xaalis boo xam ne maanaa ci coow lay juddoo wala coow loo xam ne danga ko am ci xaalis danay tekki loolu ba tey bokk na ci kuy listixaar masalan lu mel ni sëy ak yooyu da ngeen di gis lan set loolu gàllankoor la bu fekkee ku yow ku góor ki wala ku jigéen la yooyu yëpp gàllankoor la tegtale bu dee aw yoon nga doon listixaarit kazalika yoon wu am gàllankoor la bu dee loo bëgg a dugg it kazalika naka noonu la ku gént di yey lanset loolu naqar la waaye amoo taratar gént di yey lanset wala di ko sàqami loolu naqar waaye am la u méttee métt ñaare dana tekki loolu kon mbokk yi daal gént len set moom ñaare ci gént li ci ëpp dana tegtale cat ndax dafa bokk ci xeeti ñaw ko yi moom muy leen set muy puso muy yu mel noonu jotoon nañoo def nag gént watu boo ko dee def ak leen set wala nga koy def ak leneen boo ko xoolaatee ci vidéo yi rek du jar ci ciy dellusiwaat ndax loola ma ci vidéo yi ci gént watu moo xam lan seen moo lay wat wala rasoir yooyu boo xoolee ci gént karaw ak watu yooyu rek boo demee na ko fa fekk incha allah ci vidéo yi ci ginnaaw kon yàpp tënk la woon rek lu ñu doon indi ci Lancet ngeen wéy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci li koy yëkkati ak li koy dundal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.